94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaar mboolem ku toppal 94 Walf Sénégal seen analyse xam dañ leen ko defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen ah Gabriel Kane ak kan ak Adji Sarr fii lañ mujj ci yàlla voilà luy lu dëgg rek du yàggu du yàgg suñu borom léegi du xaar ëllëg am na yoo xam ne fii lay feeñ ba léegi nag mu gën a tee metti parce que noonu ngeen di joorante ay kàddu noonu noonu. parce que yéen a xaw ma da ngeen a teg seen diil xaw ndax yow da ngaa ñëwoon ne xaw ma da nga koy jàppale voilà léegi ayo jàppale boobu noonu bu fekkoon lu sincère la wala lu dëggu la yaakaar naa du demee nii de moo tax am na ñoo xam ni kenn du leen sosal kenn du leen kenn du leen kenn du leen téeñal boo defee rek mooy seen mbir ay yàqu waaye moom du yàqule mukk dafa am ñu ñu war a laal ak ñu ñu laal loolu suñ borom moo bind ay jaam ñoo xam ne nii kenn du leen laal bay laa yombi di boo leen laalee rek yàqule. loolu suñ borom moo ko def waaw mi ngi ci ñi ci biir jaam ñi nag bariwul nag mais ñu ngi ci biir jaam ñi am na ñoo xam saa soo leen laalee yàqule nga ba faw loolu lan naan cat ak gaaw maanaam cata leen di topp parce que da ngaa laal koo wërta laal da ngaa laal nitu yàlla wala nga laal koo xam suñu borom da koo bëgg ci bëgg boppam gi wala ba pare nag xam nga te dafa nit ñoo xam ne suñu borom da leen a bëgg waaye nit ñooñu est ce que mën nga leen a joxañ leen ñii xanaa borom xam-xam yi dëgg ñoo ko mën a xam voilà tëb tëb rek jékki-jékki rek sos seeni sos tey jii fan la mujjee moo mbir mi de ba léegi ñu ngi ci cëppaandaw li waaye fi mu toll nii de yaakaar naa ne fi mu toll nii yëpp xam nañ ni Ousmane dañ koo tooñoon ndax yéen ci seen jëm bopp rek ñu ngi ci euh, euh, ñu ngi ci ñu maanaam ñu ngi ci dernière bi maanaam ñu ngi ci parce que di depuis ñetti at ba léegi ñenn ñi dañoo réeroon ne Ousmane ko def ñenn ñi nag daan ni Ousmane defu ko voilà. parce que ña Ousmane ña topp ña leen toppoon ne Ousmane Ousmane a ko def ba yéen ñu ànd ak yéen jàpp di leen jàppale jàpp ni yéen yéen a nekk ci dëgg voilà aywa tey nag sénégalais yëpp dem nañ ba xam ne kon daa mel ni kat mbir mi kat ay soos la woon kat voilà te loolu yaakaar naa ne ñun sénégalais yi war na ñuy daw loolu bu baax a baax a baax yàlla nag xaareetul ëllëg am na loo xam ne bala ngay faatu dala koy woon fii ba pare boo faatoo nag mu gën a tee metti bala ngay dee dala koy woon fii ba pare nga sonn lool boo deewee nag day gën a tembet ndax ay mbugal yi méttee ngi lay xaar yàlla indi wuñu ci àdduna bi ngir booyal nu rek ñuy wax lu ñu neex ak di sosal nit ñi góor yàlla yi ñu leen sosal ku ko ci def ku nekk de sa kër di ëllëg dañu ko seetaat de bàyyi leen xel loolu bu baax a baax a baax kon nag wax dëgg yàlla gis nañ ne daal ñoom ñaar ñi ndax kii moom daa ñëwoon ne day défendre Adji Sarr da koy jàppale tey nag fii lañ mujj audio baa ngi noonu voilà léegi nag euh, jàppale ba est-ce que sérieux woon na wala sérieux wut dëgg la woon wala du dëgg ndax ànd dëgg moom daanaka ci nag ci dëgg rek lay mujjee waaye ànd bu dul ànd dëgg ci yaa ma gën a xam rek di guerre rek guerre sànnante ay ojo wax kenn ku nekk di.